région mais aussi les proviseurs et associations parents d'élèves C'est ce que ñun voulons parce que mission est de faire une tournée nationale pour waxtaan ak ñi ci améliorer l'enseignement lu ñuy def supérieur. le premier diplôme c'est le baccalauréat mais il y un étudiant qui xam aussi le secondaire donc il a une qualité ci l'enseignement supérieur mais il faut ñëw waxtaan ak ñooñu nga en secondaire bi nga ont ñuy jox ay étudiants loolu moo ñuy waxtaan pour que du sax joxe information kese mais ñu déglu lépp loo xam ne am nañ ko ci xalaat pour améliorer qualité bi ñu def comme ñoom. ciy def jéego yooyu yëpp ay signalement la yu ñuy am daal di ci dox li ñu war wax bu ay secondaire du ñun ñooy agir mais bu enseignement supérieur ñun dañuy agir parce que dañ ci waxtaan ak suñu ministère jafé jafé buñu gis rek dañ koy def rapport mais bép buñu gis aussi nga xamné du ci daara yu koy mais intéressé na système bi de manière générale dañ ci def rapport yëgal ko ñu ko wara a yëgal pour euh, trouver ci ay solution do am solo la parce que réew mënul développer sans mu am cadre compétent yi hein ressources humaines compétentes mais aussi képp kuy dugal sa dom université wala xalé bobu fa dugg lim bëgg am diplôme pour liggéey motax tax ANAQ-Sup dafa prévoir loolu référentiel yi nga xamné mom lañu utiliser ñun pour nat mais aussi moy jappelé daara yu kawe yi pour ñu défar qualité dafa am partie bo xamné employabilité bobu kese lay xool maanaam yow yaangi ngi former xale yi mais yan disposition nga jël ba bu ñu amee seen mëna am liggéey lool nak système bu bu bu rëy la boo xam dañ ko tëral di ko di ci jàppale daara yi ministère enseignement supérieur aussi di ci pour mu taxaw par exemple structure enseignement supérieur les léegi dañuy taxawal ci biir euh, daara ji kuréel boo xam ne accompagner yi mais aussi dañuy xool stage yi nu mu demee xool profilu ñu leen di jàngal loolu mooy cëru pour jàppale daara yi ba ñu obligé liggéey ci employabilité de